bu baax waaw euh, dama doon dolli wax rek tuuti sama wolof nag dëgërul bu baax ndax tukulóor la. Mhm. ndeysaan. wante ci affaire oto yi. Mhm. dégg naa nit ñi li ñu doon wax léegi. Mhm. li ma li ma bëggoon wax rek xam nga en Europe. dañu def ay ay lu ñu terale oto yu oto yu baax ak yu bon. waaw. waa Sénégal bu ñu bëggoon wala waa Afrique bu ñu bëggoon téye ci loolu. comme ça dina baax. dëgg la ndax fii oto xam nga dafa am oto bu war a daw ak bu warul daw. dëgg la am na oto yu am amiante am na yu amul amiante. Mhm. oto bu paasee fii contrôle technique. Mhm. nga xam ne mun na daw ci fii ci France. waaw munoon nañ ko yóbbu Afrique loolu la Macky Sall war a wax. Mhm. ndax oto du âge bi oto kilométrage la. ñu defal ko foofu contrôle technique ba jox ko kayit nga soog koo dugal waaw contrôle contrôle technique bi bu yàlla defee jàll na fii oto bi ngay indi Afrique mun na fekk contrôle technique bi ça répond au contrôle technique d' Afrique. mais xam naa jarul ñu koy contrôler si Sénégal de ndax contrôle bi ci Sénégal moom dangay am kayit visite contre visite. te fekk boobu oto bi du teew. waaw waaye boo indi fii sa oto nga jógale ko fi mu passé contrôle technique yi yàlla na oto bi am vingt ans ndax gis nañu fii oto yu am vingt ans sax ñoo gën a cher. am na solo yi nga xam ne ñu ngi nekk nu koy waxee fii. Euh, yi encore nu ñu koy waxee fii fàtte naa ndax dama yàkkamti. ñaa mhm. <laughs> oto yu euh, euh, nu ñu koy waxee oto am na oto yi nga xam ne day jar ba cent mille euros. waaw fekk oto bi am na cent ans oto daal. na ñëpp bàyyi ci xel waa France xam nañ ko waa Afrique xam nañ ko oto na am contrôle technique bu wóor oto bu am cent mille kilomètres fekk fii am na vingt ans mënuloo ko am au moins de dix mille euros. dëgg la dëgg la. léegi loolu la ñu war a tracé wooyu Sénégal xamuñ contrôle technique bi nu ñu demee. Hmm? ñi nekk service des mines xam nañ ko ndax man yàgg naa di indi foofu oto mais toujours problème yi laay daje. am na solo dañu war a wax man tax ñu wax waxu âge. Hmm. dañuy seet âge ci oto bi état bu mu nekk. ñu wax la oto boo ko indi kilométrage yi dafa war a am lii ak lii ak lii ak lii. nga xam ne ça répond aux normes européennes. am na solo boo indee foofu oto yu ñëw foofu du sonn ndax euh, Sénégal yemul ci Dakar rek. déedéet. région du fleuve bëgg na man sama yaay Mauritanienne sama papa sénégalais la. oto mm. ah yi ñu ñu soxla oto ci Afrique oto de c'est pas à Dakar c'est vrai oto. Mm. waaye région de fleuve amul oto Tamba amul oto région région yu bari bëgg nañu oto bëgg nañu fii boo yàggee xool oto sax ñu may la fekk oto yi daw Sénégal jëru ñu benn njëriñ léeg-léeg nga daanu léeg nga kii <laughs> da ngay ci oto sax di xool tali bi. am na solo waaw da ngay daw wallaay da ngay dawal oto di xool tali bi am na de. waaw <laughs> am na solo jërëjëf am numéro comme ça ma jokkoo ak yow ndax yàlla rek moo tax. ndeysaan bëgguma sama tur génn bëgguma dara. dëgg li ma bëgg rek Afrique du Sénégal rek Afrique Mauritanie Mali ñëpp ña dem ci kanam. incha allah baal ma ne xam naa ñeneen mun na bëgg nañu jot ligne bi ba tey maa ngi def naa. léegi 10 minutes di di xaar. léegi da da ngay bañ a da ngay bañ a coupé. ak yow ak sa bi nga sol ak yëpp maa ngi lay xool. bañ a coupé <laughs> Ah, waaw da ngay bañ a coupé ñu jox la numéro bi voilà si nga ñëwee abar ah, sama rakk ñu ngi foofu maa ngi lay déglu waaye gisuma la. ndeysaan yow ak Combe Dieng. dëgg la dëgg la dëgg la kay sama xarit la ñëw na indil ma kaset bi. ndeysaan ndeysaan alhamdulilah. ci benn géwél mu jërëjëf. merci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf euh, Bakary Bakary na ko jox numéro bi su ko defee après ma dégganteek moom wala rek ni ma ko waxee mu woote 33 822 14 90 33 822 14 90 su ko defee ñu déggante ci li nga xamante ne rek bëgg na ko ci lu ay leeral ci lu jëm ci wàllu oto yooyu mu mel ni que nag mbir maa ngi noonu euh, xam naa ni euh, liñ leen yëkkatil ci semaine bi jëm rek ci nekkinu émigré bi mu ngi noonu defe naa ni def nañ ko sax deux semaines ci lu jëm ci seeni i jafe-jafe wàllu goro yeeg njëkk yeeg yëpp waaye gëm naa ni daal li nga xamante ni moo gën a yitteel askan wi mooy lu jëm ci wàllu oto yi ba ñu ko dalee jooytu nag dal cee def émission ak léegi du tey ndax boo ko seetee defoon nañ ko ci jamono ba suñu xarit boobu di capitaine nga xamante ni Cheikh ma nga nekk fële ca France wax ne li mu yor ci oto te war koo mën a indi kenn xamul nu mu toll ñeneen ak ñeneen wax ne dinañ yor oto ba dañ koy jël yóbbu Frière ndax lan cinq yu ñu wax nañu ñu defoon ci di ci def ay émission ba tey bi yàlla illee indee nguur gu bees ba ñuy clôturer alxames ba ba ñu xëyee àjjuma la ñu génne décret boobu kon mu mel ni que sant suñu boroom lay doon donte sax nag li ñu koy waxee neex na joo gis am na na fa dàq te it nag mën naa neex waaye bu calculer itam euh, da du wàññi dara kon yàlla na yàlla neexal lépp la ñuy xaar ci seen président bu bees yàlla defal leen ko yaa seen yaakaar bañ a tas ci moom waaye ànd ak lu mën a xew itam nañu àndandoo ñun ñëpp jàpp suñu ndigg takk suñu ndigg daal di daan suñu doole jàppale ko ci liggéey bi mu mën a yemb bokk na ci nag ci lutte chômage man gëm naa ko muy euh, wàllu oto yooyu ñi nga xamante ni moom la ñuy wax ndax kenn ku ci nekk wax naa leen ko kër goo dem yaa ngi fa fekk xale góor yaa ngi fa bëgg liggéey mënuñoo liggéey nga jël oto jox leen ñu liggéey wala nga jël oto ni ko mbokk moom mu waxee koñ boo xamante ni oto amu fa nga jël ko teg ko fa ni tëdd ba guddi sax mat yee ko nga dem ci kër ga fëgg kooko génn dawalal la yóbbul la hôpital sax cakkante la te yooyu yëpp ay xeetu jàmm yàlla la kon nañ ci bàyyi xel te waa àll bi soxla nañu ko léeg nga gis koo xamante ni dana indiwoon na ambulance waaye dañu wax ne oto yi moyen de nangam du dugg te ambulance baa ngi nii fi may mujje mooy delloowaat ko dëkk ba wala ma bàyyiwaat ko fi te yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni du cakkante ci ñun kon nañu ubbi bunt yi ubbi frontières yi yombal lépp rawatina wàllu oto yooyu la yombalal émigré yi su ko defee bu dee ñaar dërëm la ñu def ko ci réew mi mën naa indi koom-koom ci biir réew mi mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko te jeexal allo. allo. waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. yaa ngi en direct sama sëriñ. Euh, concernant ci problème mu oto yi. Mhm. damay rejoindre ci li ndaw si wax léegi en Paris. Mhm. je ne sais pas ci extérieur. waaye. xam nga Sénégal souvent. nit ñi dañ cul bàyyi xel xam nga oto. Mm-hmm. concernant oto bi nekk nii da ngeen am fii oto bu bees. waaw. dem Europe. Mm-hmm. ñu jaay ko oto bu màgget mu jël bagage yëpp indi ko sasi oto bi maanaam yàq bi nekk ci nit ki ci digg ginnaaw bi. waaw loolu mooy nit yàq bi nekk ci digg ginnaaw bi mooy nit. mooy nit. waaw sasi sasi oto mooy ci organe yëpp di jàpp. Mm-hmm. te boo xoolee sasi oto boobu. Mm-hmm. sasi oto boobu noonu. waaw. bu jëkk oto yu njëkk defar yooyu ñu naan dafa dafa dafa ak sa âgé. waaw oto yooyu. Mm-hmm. seen bu ñu ko bu ñu xelwaatee ndoxu sasi yooyu. waaw dañ koy multiplier par trois wala quatre moom la ñuy defaree oto yu bees yi. benn sasi bi ñu defar ci ñetti oto moom lañ koy moom lañ koy defaree. benn sasi bi ñu defar ci ñetti oto. ah. benn sasi ñu defar ci ñetti oto. sasi boobu ñu sasi boobu par exemple ma jox la benn exemple. waaw sur euh, Mercedes 190. waaw. yàq bi yore euh, dundu oto bi sasi bi. mooy sasi bi waaw. sasi bi voilà. waaw sasi boobu. waaw tey boo xooloon oto iranien yi ñu def nii. waaw. boo xa boo daggee sasi oto bi ñetti yoon. waaw. benn benn boobu mën nañ koo xel defaat ci oto iranien yi. Mhm. comprendre nga fi may xam naa fi ngay waxee baax donc oto boo demee France. Mhm. oto amul oto bi am na fukki at am na ñaar fukki at am na fanweer rek amul sens parce que bu ay sens. oto bi day dem visite technique. dem service de ñu contrôler oto bi du am saxaan boo ko xoolee boo duggee ci biir mu confort nga xam ne oto bi oto la. Mhm. mais Sénégal dañuy dund loo xam ni da ngay nekk yow boo nekkee gouver ci gouvernement bi nekk ci état bi. tey am nga ay moyens. am na lu am kat-kat. waaw mu bees tàq. Mm-hmm. parce que li ngay am si xaalis mat na ko. Mm-hmm. mais tey jëlal benn exemple R21. waaw 405. waaw 290 oto yooyu ñuy indi fii. waaw sunu mbokk yi ne ci àll bi ak dëkk bi. mën nañ cee dund tandis ko boo xoolee tey xoolal tataay yi ñuy yi oto yi ñuy jaay iranien onze millions. Mm-hmm. bu jëkkoon dañ daan indi fii oto. dëgg la. di ko di ko di ko di ko di ko di ko jaay. allo. voilà ñu jégalu ko bu baax a baax mbokk moomu leeral yu am solo la indi sasi mooy euh, fi ñuy xamee âge oto bi euh, te nag euh, dama wax ne wàññi âge yi la tey tey ñu yemale ko 5 ans wala ñu yemale ko 8 ans yëngalul yenn sénégalais yi ma wax leen ko dañuy indi ba Mauritanie danañ xoos sasi ba am nañu ko def. visite technique fii li ci ëpp solo mooy visite technique visite technique léegi da nga koy def te doo yóbbu oto bi da ngay dem fay. ñu indi la visite technique bi yooyu defe naa amul solo li am solo mooy na ñu fexe oto yi fi nekk wax na dëgg nañu seet nu ñu ko dégager wala nu ñu ko toxalee wala dara indi yeneen yu bees contrôler ko ba mu baax defee foofa visite technique bi ndax tubaab moom amul dara njuut njaaj lépp day leer te lu mu xool ba ne lii yenu na maanaa war naa mën a ne yokk tali yeeg ñoom seen su ko defee yàlla mën a jëf jàmm ci réew mi jàmm jooju nag ñaanal naa leen ko ñaanal ko sama doom ji nga xamante ni euh, seetaan na émission bi ne yaayam yóbbu ma ci kër gi ñu faj ma kon euh, defe naa ni duñu def rek lu dul ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla dajale ko faj bi ñaan itam docteur bi nga xamante ni moo koy traité euh, yàlla nañu yombalal lépp jot ko wàññi ba lépp loo xamante ni daal bëgg nañ ko ci ñu def ko ci bonne volonté yaa ngi toog di seetaan nañu dimbali li laay war a sóoli jaratu sax lale di sonn di ñaan di wax na itam social bi nañu ci dimbali parce que dinañ ko gis dawaat ñëw hôpital da yaa fi technique kuy faju comme da ngay dimbali ñuy faju sama mbokk dafa feebar nañ ñuy sarax ci yu mel noonu télé bi du sama tele njaay la sant te nag waxi boroom kër waaw la sant te la mu bëgg laa koy toppal ci télém mooy waxtaan kër gi njëkkee goro jëkkër jabar njaboot gi loolu lañu ñu war a waxtaanee lii cas bu exceptionnel rek la euh, kon ji fii laa leen di tàggoo rek jox leen rendez-vous incha allah altine ñu ñëw ci semaine bi du na nag du ñu yëkkati tem waaye semaine anniversaire kër gi lay doon di seen anniversaire yéen ñi ànd ak ñun juróomi at yàlla waaye tam yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg 2STV di ko sataan jàpp leen ne semaine bii di ñëw seen anniversaire lépp lu ñu ci jaar lépp lu ñu ci réaliser lépp lu ñu ci def ci ndimbal ci kàttanu yàlla dinañ ko ci teg waaye itam sunu liggéey itam naka lay doxe ak naka lay tëddee lépp di ci ànd ak yéen dara du leen ci ump kon jàmm ak jàmm nañ ko fekkee altine ak jàmm salaam incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi amanillah jaa ngeen jëf